global textile Assane Fall Parcelles unité 12 es tout Sénélec ba Déjà il gros à demi gros. Matidi.com Johani Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. MT Couture, Mam Tierno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Maïflore, Paps VIP, Chat Création, Adjabi Création, M60, Pino Fashion, Ara, Falcon Institute, Classique Couture, Ubi, l'horlogerie sénégalaise. sile jabootam rëccu laay fekk naa préservatif sa nekk bi ma la laajee nga ne ma du yow bi ma defee suma investigation ci laa xam ne Bambi moo ko fa dugal Ibrahima Khalil Thiam li ma bëgg a xam lenn doomu la dangaa mës a seq dara yàgg sa cousine yow laay waxal dangaa xam lan la Bambi woddoo papa xaw ma lu Bambi woddoo de te mosuma seex ak moom dara nga dalal ko nga xamal ko ni seytaane mo ñew waye seen mbëggeel moo këpp doole man li ci dess na xol nan la koy lijjante mom kay gis nga saa yoo fa demé teraanga gune la defal luma bëgg mu jox ma lu ne lu ne da ngeen a yàgg. dëgg la te ay xarit ngeen de. ah waaw waaw loolu dëgg la <laughs> te li ma di gën a jaaxal ah non Bambi bett na ma. Hmm. Bambi njàmbaar gi ci moom Bambi ba nga xam ne mooy jàmbaar nga fa ko tool yi am te ma sàcc wax la faama nee na ma bu ko gisul ci tool yi day wéet ndax ak njàmbaaram. wuyu ma hmm. loolu su ko defee def na li may séntu ci moom hmm. ndax nag gis nga liggéey ci yar la bokk hmm. gis nga li ma bëgg a yóbbul faama ci weer wi ah, yow foo nekkoon ah. wuyu ma xanaa lii dina baax macha allah càmbaabel demba càmm sama xarit bi baax tabe gën yow lo def sax mo gën lo def sa dir day andat ak man. mi ngi ni laaj ko. Ah, sa dir dañuy demal na nga nangu. est-ce que duma la baye nga dem rek. wuyuma man nak amna luma lu jaaxal bu njëkk suñu ma saan wax nangu nubu yaa njëkk a tëb waaye suñ ko waxe rek nga dummóoyu lan la. Allô Fama wuyu ma teeyal wuyu ma ya, teeyal te nga and ak dal li ngay wax amul dara luma ci dégg loolu nak la mën nekké. ana fan la bambi duggu? ay waay fàqati na waay kenn xamul fu mu ne papa lan la lan mo dal baam bi defatina ma neenam faaxatina kenn xamul fan la dugg ko mel ni mësuma ko gis fat Bintou len rek la lay bëgg xam gis nga Bambi ndjay mi li mi wax bu ko def sa xol bu ko def problème yang may dégg bu baax Bambi ndjay ku ne xam na ne baaxul guddi baaxul ba man ak sa jëkkeur li ñu liyee dafa très fort mo jitu sa judd mo jitu sa ak sa dem ay judd bàyyi leen ma may ma waxtaan ak sama jabar si allo waaw góor gi waaw ñom ñing ngi wax ñoom ñu fi top waaw mu tan mi fi waaw waa pas Bambi mon amour ne t'inquiète surtout pas je vais te protéger tu sais bien que tu es mon amour je t'adore bah oui. Bambi Ndiaye maam Bambi yow waat nga ne yow bëggoo jàmm yow luy tas mbokk tu ba là..! ngay Bambi lan bañ xew ah ci biir caameen gii Bambi Ndiaye yaa bon. Bambi mii de tasul seen yaakaar man mii la tas sama yaakaar man mi ko jël teg ko sama kër mu jël xas wu tol nii sosal ko sama doom Bambi man bàyyi naa la aduna ak alaxira man de dinaa dof man lan laa war a def te defuma ko lan Bambi Ndiaye nu mu mën a nekkee ci kër gi ëmb ba wësin te man yëguma lan laa koy wax lan kàcce gi faama amoo dara loo may wax li la waroon yépp def nga ko kii moo bon bonu boppam ana xale bi. Ah, mi ngi si cour bi ak kii mandal yow xam nga ni dangaa jotu dëng. góor gi maa ngi leen di bàyyi maa ngi si. Eh, fii laa la soxlaa nag taxawal yow laay waxal xam nga ni dangaa jotu dëng waaw mu fat tas fat la sama biir kër. nga màgg bon ma yóbbu la dëkk ba yaakaar ni danga fa baaxe nga ñëw gën a yées gis nga ëtt bi nga bëgg a tas xam nga ni mënoo ko mënoo féewale mbokk gi mënoo ko laa la wax te gis nga mbokk gii nga bëgg a tas bëgg leen lekk benn par benn mel ni jën ni muy lekke moroom ma ci biir gi loolu balaa am ma beddi la laa la wax keroog bi ma jëmm ji njëkkee woo wax ma ni dangay fàq sa fàq yooyu boobu la sama xel waroon na tey ci yow ma xam ni doo baax ndax xamoo ko sax waaw naka nga mën a nëbbee ëmb nëbb wasin nëbb doom fukki at ak lu toog tey nga ñëw bëgg a taxaw fii naan damaa lijjantul ana kan mooy bàyyam laa la wax. sama yoon nekkul ci loolu. Eh, mbay ma laa la wax. dafa ndànk rek. papa Ndiouga man fenn ma la Ndiouga bu ndaw baabel eh, dama ne. yow xamoo loolu. xamoo nan la ñuy baaxee ndax munoo ko. waaw mënoo ko tey yaa ngi ni bëgg a tas sëyu xal euh, c'est-à-dire xalil bëgg a euh, euh, ibnu Thiam eh dama ne balaa ngaa tas mbokk mi ah ma doog yow àddina ak alaaxira i waaw te gis nga li ma la ciy wax sax ëtt bi yëpp dogoon nañoo ak yow ba nañ la man maa la ba te bés ni ki tey wallaay dee nga ci sama kanam yow nag amoo looy jooy faama li la waroon def nga ko kii bàyyi ma ak moom man maa koy lijjanti sama bopp. Euh, Papa Ndiouga ah ta décision elle est brutale hein. lu ma li ma lay wax dafa leer bu ma déggee ni xool nga ko mooy amatoo bàyyi. maa yéen kii li ngeen koy wax dara safu ko ci. princesse la génn naa fekk la bam bi dama ne nga génn jugal nga naan da jooy dara safu la dara frère yow la xam naa la bu baax xamante nañu dama ne nga jug génn ci biti ci biti bi Eh, xalil yow lo wax ni ba toog yow est-ce que nit nga est-ce que xam nga li nga def ni na nga mune wax sa papa lu dul dëgg. fa li am solo moy que ni xale bi jurumako ya gëna gën a xam ne du wax dëgg bi bañu gëna ne dara ak bambi parce que sinon daf ma nar a takkal bam force après. mais justement putain xalil justement da nga ko waroon wax li nga xamanteni ni moom am parce que bambi bi fii lay profité wee hein. ah jaar ci wax ñepp sen passé su ko defé sa papa ni ko da nga koo lan wax après. ce sera sa parole contre la mienne. Khalil tu sais très bien que même pour des 1 de chance c'est possible que xale bi nekk sa doom. est-ce que juste Tu peux ma dire.. que mu leer la ci sa bopp nga waatal ma que yow xale bi juróo ko li que wax ni dinaa ko mën a tu le peux. toogal. nga yaakaar ni bi lan moo ko yóbbu nanga nangu jour bi ma waree dem France ci la jël ay préservatif dugal ko sama biir néeg pour que sama papa mën ko gis annuler sama voyage man loolu tey jii laa ko yëg gis nga avantage boobu mu am muy avantage doom ji lan moo ko teree mu wax ma ko boobu ba léegi baby bi seytaane mooy daw si yaramam comme ni deret di dawee ci yaram doomu aadama mais tant que man ak yow ñu ngi nekk faa ak xalil seytaane boobu du mën tous suñu ñaar dara du ko mën ba ñuy lekk loo pom bi nga xam ne moo ñu génnee àjjana bi ñuy dund man ak yow ci kaw suuf sa je bi bii de je t'aime boo ànd ak ñàngal mooy lan doo firi sa kanam gi nga wax ma je t'aime safuma rey eh da ngay nga wax ma je t'aime Ya ini di gën a ñaaw voilà yaa ngi nii reetaan nga par force je t'aime aussi. waa bee seetlu woon ni saa yi su ma ñëwee seen kër rek fekk fi kaa waaye bu tay bi choqué. man ma jom si galé bi si boobu. sen kër gi tamit da ngeen doy waar da sen kër ga ka ga. xanaa sen kër gi. sunu kër gi. mais sa yaa ne sarax si bir de. saa yi mënatoo di génn. nee naa sa si biir de waaye est-ce xam nga ni ba tey ñëw seegu ma Mama man ban néeg laay wàcc. yow nag kaa lay doon de parce que saa yi nii man si papa Ibnu laa yaakaaroon mu takk soxna àndax moom génn bàyyi ma néeg bi ni may waxee yow nii wax fa dëgg yàlla xaw ma soo ñëwee fooy wàcc. kon yow sa wax ju metti ji néegu jeune marié sax amagoo ko. safle

daf fay jaar rek ne ma ma toog kër ga. loolu sax du problème loolu du Thiès après dañu koy gérer instant ñun nañu focus ci sunu ligne de mer bi Papa Khalil ak Tata bi ñu payal. Hmm. il dee Saloum du ay fodé. du ay caaxaan de waaye sa xam nga dara <laughs> ay sunu doom ji suñ ko tuddee woon sa yaay kon instant bi maatam la ñuy fekk ñu ligne de mer. a naka nagu. bilaahi taatu taatu mànge. ay gune gën a doom den ngaa fatu di.

mais da ko yor auto déposé lu gatch man kuri ci am mi ma am gatch ali sukar ba mi bi ali sukar lima def ci bambi ak lima def ci bambi ak fima tek bambi sëyu bam bi ak imnu cham sama làmmañ wi la joge kon man mi ma am gatch waye nak nag na gatch bay jenn len rek la lay xamal nañu abal ñu bam bàmbi jaay nañu abal comme mom baaxul te bëggu ta baax ta day tass mbokk ngir yalla li xajul suñu biir mom mom nañu abal rek ah ndax nga sañ ko wax cham man di li ngeen di wax laa waxoon li bu ma koy wax fa ma di aduna wërgal këpp mii sama bop bi wayin yéen gone gi moom ñaataat la waram ah xale bi mom safna na caameen de heureusement nak jërul dara dara dara petit poussin waye beut yi ay beut yi sadiq bët yi saddiix pini peni noppi nag waxi nopi nopi feew mo khalil ben ali sugar li ma wax noonu seetlu ko maa yaa ngi dem doo xaar. non grave ba ma dem nag dama war a teel yow suba ma tax ah waa kay kase àggal ak jàmm waaye Aliou Soukar li ma wax gisoo loolu. Tidiane. Euh, Khady maa ngi dem maa ngi dem kër ga. y a un souci. non y a aucun souci aucun souci t'inquiète. parce que journée bii may éviter su nekkee dafa am problème boo ma ñëw. place mu war a nekk d'accord. donc t'inquiète pas. ok. dem nappiwaat. non demee dafa am marée haute nag donc wóorul nañ bàyyi ba suba wala donc kii kon nañ bàyyi ba beneen hmm. noppi. maa ngi dem. ma ne Bakir Bakir moom man de ma wal man de musuma gis pap njuga melni nii guleet man xiru yim don xiru keur gi la naron bombarder rek ba mu ba ci suuf la ilaha illallah njuga ndeke gaynde la de ah Bakir yow xana du yow lay waxal yow tax sulare fo fek borom bob bu ndaw day sulare, yow dal nu la neex mel Bakir su may wax yow doo Hmm, oh, Yo gis nga damaa concentré wu. non non bul eggali japp la Yo diiné la japp ci bopam. sa weer yi nga melni ni tom yow waxuma lol sax Bakir eh, suba na nga téla wacc. dama lay defal ci bu jën bu wéx tal. bu am ma ci suul ah si pax yi di tepp ci kaw Lol dana la neex de ha. Yo xana fa ayewul suba waaye yow awa seex mi dem ñaari fanam laa jël di ko togg di fi ne xale yi foog ñu jàppale leen te bàyyi defante bi amul solo lii de la. nga xam dëgg la waaye yow waañ moo sawaru ci yow. loo wax yow. te ma ne maanaam sawar nga ci togg yooyu mais lii gënoon nga bàyyi faa dugg ci waañ bi ah? jéem a jéem nga jéem a noppali ko yow dem dem a jéem a gérer leneen. ba génne day am xel. faa yow gis nga ko fan yii. xolam neexul fan yii xolam neexul. ku sa xol neexul nag dañ lay bàyyi nga reposer moo tax ma jël ñaari fanu awa seex booleeg sama ñaari fan muy ñeenti fan ma di ko togg moom ma bàyyi ko ñaari fan àdduna amul solo lii dong laa ko defee man ci egg laa damay ñëw rek ak di ko jox ko defar. yow ak la faa def yëpp sàcc sa turu turandoo bi te ñëpp xamoon nañu ne yaa ko moom doo ko bàyyi mu jéem a sonn tuuti ci waañ bi yow nga noppaliku dem seet sa sët bi.

Ah bon, depuis quand Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bilay, sonal la chili yep, pour monsieur Vraiment, merci encore une fois. Contana torop. Allez, excellente soirée. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Yo, tu disais xarit. en fait Leila man dama am sama benn xarit boo je ne au début sax déggoowuñu woon noonu fois, léegi dafa commencer di ma soutenir di ma conseiller sur le bëri. Mm. j'apprécie vraiment la manière qu'il a de me rassurer parfois. ok. tais non tais dafa jékki saa yi rek téye boppam limit dafa mel ni ku may daw en fait te man comprendre xuma sax te man li ma si gën a déranger mooy daf ma metti te man damaa xamul sax lan moo tax ma may metti man xarit Thiam ku ma faalew faalew ma la c'est simple dëgg la kay Thiam Babel yow li la Tiijaan faalewul moo la naqari wala li tax daw bi mu lay daw metti la moo la metti Tidiane man yow léegi est-ce que doo teg sa ordinateur bi nga mën a concentré wu si li ma lay wax man bi ma commencé wax ba léegi fan nga du dégg ma tudd Tidiane. Hmm. seen naa leen sànq ngeen di wax dégguma nag dara waaye xam naa ne daal yéen a ngi doon wax waxu baas basse marée te li ma seen sànq ci sa écran bi météo la Khadija yow kañ la la météo sonal.

yow léegi daal la ñuy wax ni foo ko teg ci mbëggeel rek laa ko teg yaa ngi dégg lu ñuy naan mbëggeel ak a doy waar ndeysaan non non man mi mën ak Tijaan loolu dafa mënut a nekk sax loolu mënul nekk c'est impossible mënu maa ak Tijaan te pourquoi pas Xadi gis nga mbëggeel mbëggeel ci boppam moo ànd ak seytaane moment bu ne rekk lay ñëw doo xam sax cay mbëggeel <laughs> fis yaa ngi mer de xadi <laughs> bu tiij Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Kassé ah. kayre

ak biir bu feesul àndul de. waaw waaw mooy loolu de yow kan moo la wax man sama xol neexul neexul. yow sa xol neex na waxal. waaw li yow tamit. li ma xamee neexu ma a dénk lu bari. Ah. fan yii dafa am koo xamante ne nii moom laay xalaat tout temps. Mm-hmm. musul am mu nekk loo xamante ne nag na trop trop trop. muy la mu lay jaxale ah mën na ni koku dëgg ba nekkee xala ñoo bok fu ñu nekk. Seydou Dia yow amoo koy na pour Khady jam kan on Khady. Khady Thiam mel ay ay waxul nobel ak ay avel ak yow yaay man ma lay expliqué. Hmm. sama xalat yow nga may wax ay waxu mbëggeel. <laughs> da ngaa def ni seenu ma la sànq bi ngay wax ak moom seen naa la di yow rek laa doon bàyyi xel lu ma mësta gis ci yow laa gis ci yow nga di ko xool bët boo xam ne mësoo koo xool benn jigéen xaar jaam nag moo nopp. waaw li ngay wax ni mënul nekk de man mënu ma nopp xaar jaam yow xam nga ne Ousseynou sama du sama xarit sama frère la. eh. na nga mën a xalaatee ay ay waxu mbëggeel sama diggante xarit. Ousseynou dëgg la sa frère la mbëggeel daa xool xoolu lool. non non yaay loolu. mbëggeel xelum caar lay yor neex lay dugg fu neex lay génn kenn noonu lu ko daal. man ay affaire de Nobel ay affaire yooyu mosul nekk sama xel bokkul sax samay affaire maa xam nga ni bettoo ma xamoon naa ni nga ma sa dajeeg sa seytaane. Hmm, sa seytaane. nee naa la Ousseynou yaay. feeg yaa ngi xeex li nga yëg ci Khady Thiam.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 Rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best.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

Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. yéen góoru caameen seen mënin rek ngeen def bu problème amee da ngeen def coalition ànd jàppale da ngeen def seen coalition ànd jàppale Khalil. Bambi jigéen la Bambi bu juree doomam ji ne pak xool bu taxawee ni kii mooy baayam mooy baayam ndax jigéen ku jur doomam xam na ko. Ah, loolu nga teg ko fan yow. Ah, parce que yaay laa dama di jigéen nekk yaay. ma ni jigéen mën na xam bàyyi doomam waaye mën na fenit mën na ko mën na ko am jiñ ko keneen. li nga ah? li nga wax dindiwuma ci virgule de na xam naa ni baam bi fenkat la am hmm. fenkat la mais man am naa yàqin ni bii yoon dëgg la wax taxul nag ngeen jël ko nekk ko coppet sànni ko buddi sànni sa xaj am na loo xam rafetul seen dareet la. gis nga xalil caat la. dofe na xel mi soriwul mën nañ ko waxal lu nekk waaye nag du fen waaye baam bi mii yow sa yow naka ngay waxee ne nit ki moo jur sa doom ba mu màgg bay waaj a sax euh, nga nga ne bëri suñu kaw man fi baam bi jaar mère faama ba nëbb ëmbam bi ba wasin ko ne pat ak moom naa sikk nag am na défaut de waaye yéen it ñàkkoo leen défaut de góoru caameen yéen it ñàkkoo leen défaut de entrez. soxla woon naa leen de. kii la muy lem-lemal nii boo ñu soxlaa nga teg sa kus gi fii wax ñu ko. waaw doo bàyyi ba suba dafa guddi man damaa xiif sax fi mu ne nii doo bàyyi ba suba. lii mënul xaar suba de dafa jàmb fifi la ak yaayam jooju noonu. lan la mère Rama defati. deful dara lu dul wax ma dëgg. mais daf ne doomam balaa muy ñëw daf koy leer ne bu ñëwee day day tëdd fu nooy fu bakkene parce que kër waajuram namu fa dara. dëgg piir la wax. Hmm, yow loo ko tontu. daa koy tontu loolu dama am lu ma si tontu waaw laa ko wax instant nii bu papa ibnu takkoon tata bambi sax ma xam ne mu leer ma ne day génn gàlle bi man ma aménagé waat néeg bi dafa métti takk sa soxna am sa doom mënoo fanaanoo ñoom. ñoo daal fanaanoo bi la ci ñor. daa mel ni yow. Nani yin ci góoru jaameen am ngeen defo de mbete ay kanara ñi ngi ni rek wa bax na yow du loo rek la metti demal ba suba ak jam ma ko koy le man a ah, ma manière suba nak dama fi yandu de damay téla fi kan mo xoyu bakir jam bakir yee eh. dama ne ay nelaw xaju fi eh. yeewul dama ne bakir yow ñaata at nga yow ya, lolou ñu ko kan? laaj sa jëkkër xana bëgg ma dé yow ya, wura jàjj nga biñi peinture asaman yaangi to bientôt 50 ans bakir nga judd sa ëtt bay bi juddo fi yaro fi magge fi takke fi jabar am fi sa taw bi ba mu mën jur doom bakir mëno lijeenti sa gis nga li Omar wax mi li yëpp ñun ñoo ko teg yow lay wax sax duma ne ñun yow daal xam nga lan moy sa objectif ak lan nga bëgg ku ayé tay Safna neex naag ay kaañu tëddi loolu de mën nga ko mm. waaw loolu daal nga bëgg sa àddina yow waaye mbaa xam nga ni tey jii boo fi jógee yow di nga wut kër yow laay eh. waxal eh, eh boo fi jógee laa wax di nga wut kër dafa gudd laa teg xoolal xoolal bunt bi bàyyi li nga def sama yoon nekku ci ma yow li nga nekkee maa la ci bàyyi yëgatuma sama dama ne boo demee visiteuri bi suba da nga jël sa part yo par la ni ay eh, action iya, ya xam ndax da ngay don ba kii nu mu tuddee ci jóge caam mi ngi dund wala da nga koy miraas mi ngi dund loolu sama fou waaye yo keur bi ko tegg sa loxo tegg ma sa loxo teggiw ma ben loxo laa la wax benn loxo laa teggiw amay ah, gay yaay booy looy jooy li sa papa and ak ñun moo tax ngay jooy bëgg do ci wax wo ek ci dakaru tay bëgg delu tay ay ay yaay war nga ci wax de xoolal maa ngi lay woowaat ñu fanaan jàmm kookan la noonu sama maam la mi ngi la doon na hmm. ah, nu mu def ça va dafa doon xool sama yaram bi nu mu def hmm. baa wax nga ni ko da ngaa dëgër bopp doo topp conseil médecin yi te li ngeen def nan ngeen ko mënee. yow xanaa dooni ma bambi. si bambi laay wax ngeen sëkkatoo doomu jàmbur bi génnee ko kër gi si jigéen. gis nga jooju bambi buñ ko defaloon noonu ñun ñëpp lay jeexal tàkk. ba noppi gas suñu diggante noonu ba nuy lekkante. dara wóoru ci kii ma gis ni mbokk rekk a ko ñor te dara gënul metti nekk ci famille boo xam ne dañ la beddi wan la ni sa dee eh, waa noppil bàyyil jooy yi chaque jour may la jooy ngay jooy baaxul si suñu doom daf koy gaañ. sa papa waxal ak moom la déglu xale dafa war a jël ay responsabilités fekkee moom mooy papay xale bi benn jigéen méritéwul li Bambi di dund nii. nëble benn yoon ma le ñaari yoon ma nëble ñetti yoon ba ñeent ba juróom ba ñaari yoon seetal yàlla ci li ngay jaay nag seetal yàlla ci li ngay jaay ay jullit ngay jaay de jën yu ñu congelé ñaari at nga teg ko fii di ko jaay Marème Thiam nag ah mais qu'est-ce que la na loo doy ci lan loolu laa laaj ci lan sa doom ju góor ji war a wàccee jabartu mënu ci dara. te li ko ko yóbbu mooy ndey ju ñàkk liggéey ci kër baayam. waa léegi lu ku damane kuy baayam du Bakir Thiam kuy bàjjanam du Marème Thiam fami ay gaaf. sa ndey bu sa ndey deewee ngay xam. suñu ay maa subhanallah maa la juutu wang. sa yaay deewee sa ndey daa dee nga bëgg sama ndey juutu naa la wang yow. maa la juutu wang ba nga rayee sa ndey yow. aywa koo ay gaaf. seen juddu seen seen seen yaay na ci kër gi amul dara ba raaf ba dem te ay lay la laaw nga poñ nag gémmiñ sa gémmiñ gi daan ñuul ba mel ne taatu ci ah baax na laal mu dem nag waaye sama yaay ci ah baax na la fay boolay ah, suul baax na waa <laughs> ci jàmm ça de bu ma nekkee ci jàmm ak ma nekkul ci jàmm sa yoon new ci lijjanti moom yow na bu gay nga yab ci la yow na bu nga di ma bëgg a eh, kar kar kar kar te yow bi nga ak légui yàggul. xam nga man dañoo bokku ñuy gëy gi motax tax. sama yoon ñëw ci bokku gëy sama yo lijjantiwuma mako gis nga fi nga ko défé fi la la koy waxé yow lan la dama xamni kat man luma ma suma baye rek damay ñëw nak té nga xamni ne samay noon ak fi tok nak nañ ci ni na bu géy xamaluma légui dama bëgg nga taxaw. ta bu ma lay may amumako ta nak taluma ay wax gis nga ni nga don kar kare nonu la lay mal la malee ba mu neex. mal la malé mal la mel te di nga ma fay. té nga xol sama non bi sama non jay ko di bi. bayil sama loxo. fa bax na dina dina la. eh ma xooli na ci peñe bi. peñe ban. may ma ni ah. wa li lan la. wa gis nga sama maytu dina la fi teugal baara mbay xal joo xamné do am mbassa mbassa xam nga ma waaye yow yow yaa ngi yóbbu xelu papa Ndiouga di dama ne woon naa ma koy toggal ceeb bu neex bul def lii Aïda gis nga bu jeexee rek ma ñëwaat waa Aïda waa Aïda da nga yóbbu jëli waa Aïda kaay bul def lii kaay Aïda eh, Marème Thiam amul saw mu waw ci ñaata la ñaar lan ñaar xam nga ñaar fukk junni. ñaar fukk junni. ñaar fukk junni. pour yow jën ak table bi yëpp ñaar fukk junni. yow sa yaay ñaar fukk junni lay jar. ah ma dem jaar yaa ngi may dépassé de yow sa yaay ja dee moom du jarul ñaar fukk junni. ay ah, yow do lekk say jën dem na. man sama xarit nga sax <laughs> nañ bàyyi wax ju ñaaw nag wax ju ñaaw xaju suñu jigéen. jom sa jom nga ci <laughs> eh, ah, ah, lebal ma ko. <laughs> dinaa fay eh, teggi teggi teggi tegal ci suuf. waaw ma dem caa ah Marème merde yow bët see. je m'en fous de toi. yow boo. bët see merde. Hmm. fekk si la. ndox bi tànk nga sangu normal. Hmm. nga lu yomb da yomb. dis-moi def test ADN. war a def test ADN. bébé bul nangu cette peste de bambi di jaxase sa xel bi loolu ko tax a jóg de écoute yéen ñaa am na foo leen jàpp ba donc pour moi le mieux c'est que nga def test bi pour au moins nga xam ndax yow la wala c'est pas toi. li ma wóor te wóor mooy que dafay fen waxul dëgg mais meuf c'est Bambi loolu moo ko tax a jóg jaxase bàyyi ma Bambi waaye xoolal li mu def ci tàkkusaan Babel bi la même chose moom la def démb. Je comprends ce que tu veux dire, mais euh, Bambi, j'ai l'impression que mon elle était surprise par la venue du petit. Donc peut-être ce n'était pas prémédité. <laughs> Mais ça, c'est Bambi. Mais Bambi, c'est une manipulatrice hors pair. Voilà. Nena, man ma jur doom ji entre je loolu la wax mu da fay sama frère loolu est-ce que yenn na maanaam. en tout cas. en tout cas dara. Oui ma man loolu lépp sama new ci Bambe dem na demul fu mu dem ak je m'en fous xam nga jox on soit focus sur notre avenir ñu def focus bébé sur suñu crèche bi def focus si Bousso mii yaa ngi ba paré nak def focus sur ce turandoo bi ñu xool papaam ak yayam nan lañ leen mëna a pour ñom tamit ñu mëna japp ci dara. Ah, parce que dañoo def lu reuy, te ku def lu reuy am lu reuy. man loolu moma ma ëppal njëriñ. da nga ñëw dem ñu dem sangu ci jugal. waaw dama may ñëw. eh jugañ dem. papa man moom dama la mere de. ah lan moo xew lan laa def. ah dinaa la mere kay démb li nga fi def yëpp nekk fi di yuuxu di indi ay problème ba sa tension bi na fee jóg. Leila doo ma dimbale ngir yàlla rek bañ ma fàttali sama journée kooku la ma ko waroon a wax yëpp wax naa ko ko. amatuma dara lu may lijjanti ci ay mbiram. paa li nga wax dëgg la waaye bul fàtte mag sax feebar la boo fi nekkee di coow yow coowu kër gi yëpp nga bëgg ko gàddu mel ni comme si amoo ay doom yu góor am nga ay doom yu mat sëkk. Hmm? boo jógee di ma bës loo tout le temps rek foog na ne que bés bi mooy wàcce sa tension bi waaw papa yow bu la fi dara dalee man bés bu ma demee nooy def. yow lan moo tax nga xëy rek ni da ngaa bëgg dem Maroc loolu jaaxal na ma torop papa bul wax loolu man xëyuma xëy rek ne damay dem Maroc opportunité bi bi ko amee yàgg na de damaa toog rek bañoon dem bàyyi ma dem saisir ko ana lan moo ci soppeeku Leila ana lan moo tax nga bëgg xëy rek ne da ngay sori say mbokk waaye yow tamit bu ma jaar ci ay sentiment xam nga ne man xëyuma xëy rek sori leen bu ko xanaa gisoo li mu dund année bi yëpp dafa metti ci man en plus dama soxla dem ci beneen dëkk xooli leneen liggéey leneen lu bees wuyu ma d'accord naa ci dem mais dem dañ koy préparé te yow xam nga ne lii dama ko namoon yaay sama xarit ah wala danga maa bëgg a wéetal Maar dat moet toch leuk. Ja. Ja, maar ja, maar ja, goai. Waar vind je Leila, retrouvai, retrouvai. Dus aan. Dat doen dingen niet. Eetje, eetje, eetje. Bismillahirrahmanirrahim. ay ca ñu añ. jërëjëf. Ah! waa Papa Ndiouga. sa papa de añul yow. eh. eh wóor ma waa kër gi añ. kan ngay Bismillah. Ây chà. Anh chưa lên nữa anh. Ây chà ấy. Vâng. Ah, mateng no lola menes. Made pala yo. Mendi mu maangalini. Aje bismillah na sạch gyam. Mm. ya. Baru dong. Bismillahirrahmanirrahim. allo Bakke. Hmm, jarul ngay ñëw de. ah liggéey sa liggéey daal. Fade la mujjee jox ay eh, bi na togg. xam man nag damaa rafet xol lii de laa def te fan yii xolam neexul moo tax ma jox ne ko toggal ah waaw baax na continuer sa liggéey jarul ñëw ñu def noonu jërëjëf bisous je t'aime I love you <laughs> lan la yéen da ngeen a mës a gis kuy fen ah ah Sénégal ngi nii léegi fenkat yee fi gën a am valeur waxkatu dëgg yi di Lalu lalu looy xool ay lalu doo lekk lan la yow. lan ci dama yaakaar ne guddi wala sama bët moo leeru. lan la lu xew. fiirir heure añ. heure bii. da nga xam lu neem ku marché moo tax ba ma demee aw hmm, ma ma borñale séquence bi def ko jour la problème. plaindre nga wan Mariam la ma amul.

moon nga ko wax nag kan mooy mère fit maa ko ëpp fuuf wax nga dëgg mère Rama ndànk rek nag ak dal est-ce que yaa ngi may dégg dama la est-ce que yaa ngi may dégg ndànk ak dal Marème <laughs> borom dëj bi mën na jooy dëjam pour man mii rek waa léegi yow yi zonzé ba a indi doom wa ana lu ci di wuti yow xamoo ci suufu mbaar ma la xamoo ci biir néeg bi la xamoo fan lan ko defee waa léegi yow loo ma sonalee ak di ma laaj lii laa lay laaj xam nga lu ma la bëgg a xamal ku amul néeg sax yow nooy sàccee jabar wax nga dëgg wax nga dëgg de wax nga dëgg boo nee ngappuj war naa mën a ne ndax yow xaw ma fu la nit di ba di la yàpp yow yow ku la lekk du rees ku la naan du Hadija, Khadija Khadija hmm? ça va oui Rien de problème. Donne-moi la question, bon. Bah parce que d'habitude en cours euh, tu es super concentré, mais aujourd'hui tu étais ailleurs. Et là même Yang est plané. <laughs> On t'inquiète pas, Doudara. Ok, si tu le dis. ñi xamante Mais ça y est soxla waxtaan maa ngi fi ok. merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Mais est-ce que vous un peu les rapports entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés Oui, alors on en distingue deux. Un rapport de rivalité et un rapport de coopération. Excuse-moi, allô Madame. nous ça va Tranquille, ça fait des bien de balade après tes cours. Euh, désolé de xam nga li ma raté si cours yi dafa bëri Tu su ma wàccee profiter pour me a rattraper long loolu moo je comprends t'inquiète next time à plus. d'accord à plus. un copain. un ex. Ah. je disais que pour. Euh, moom day dagg bunt bi wala Emi ça va. ça ne va pas. ana Bambi. Bambi. mère bu ma répété Bambi lay sét moom ma fi indi xanaa gisoo ci la dara te moom laa ko indi mu laa moo Bambi. indi caan. mère mu may Bambi lay waxal mon amour. innu innu meex may ma Bambi lay waxal Bambi nekk fii dem na dem dem fan lu ma si xam dem ndax lan lu sama yoon bàyyi ma fi man mii ah Bambi kay na ma sori sori ñépp sori famille bi ñu am jàmm tuuti ak rippi innu dedet jangal ma e eh da ngay dugg wala nga genn sa yi ngay def ni xaju fi waaw. dans sama yaakaaru bëri bu baax dàq loolu ci impossible.